monsieur le maire bu ñu leen mën nga présenté ci une minute rek loo ñuy wax. man maay Maguette docteur Maguette ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement ancien secrétaire euh, général des de l'association des institutions africaines de financement du développement maire de Mékhé natif de la ville de Mékhé amoureux du pays c'est le Sénégal et de sa ville Mékhé. Euh, monsieur le maire ci sa présentation bu déggee dafa mel ni yaa ngi woon baat. mais lan la indi bon man euh, dama yàgg ci fonction publique internationale da nga ma ni maa nekkoon secretaire général de l'association des institutions africaines de financement du développement qui regroupait l'ensemble des IFD et banques de développement du continent et qui a été créée par la Banque africaine de développement en 1975 et bi ma ñëwee j'ai été consultant à la BAD ñu jël ma foofu comme chargé de com et j'ai gravi les échelons pour devenir le secrétaire général mais mission bi moo doon ma rendre institution bi autonome signer accord de siège génne ko ci batt loolu def naa ko ba ma ko defee man leen fii amatuma fi lu ma def damay bàyyi dem batt ma génnaat ci association bi delluwaat batt nekk fa def fa carrière ba nekk fa le patron donc euh, de la communication des relations extérieures et porte-parole de la Banque africaine de développement mais sama loxo musuta jóg ci ngaay sama tànk musu fee jóg bu ma nekkee ci bitim maa ngi doon saytu lan moo xew ci dëkk bi su ma musaana ñëw li may njëkk a def mooy jubal ci mairie bi waxtaan ak waa mairie laaj leen lan mooy tolof tolof yi ak lan mooy jàngoroy dëkk bi lu ma ci mënoon ma def ko demoon naa sax ba créer fii benn fonds de développement communautaire boo xam ni dama doon financé ay les petites commerçantes et def microfinance temps yooyu xawagul sax et ma xoolee nag ba xam ni vraiment jox naa Afrique li ma ko waroon a jox boole ci Sénégal parce que ku def euh, plus de trente ans dans la à l'étranger dont vingt trois ans dans la fonction publique internationale dans deux grandes institutions ah, am na nag njukkal aussi ci réew alors loolu nag xaw ma di ma topp waaw sa réew nag ma ni mais maa ngi liggéeyal sama réew parce que kuy liggéey baat yaa ngi liggéeyal sa réew yaa ngi liggéeyal Afrique yëpp mais ma xool sama dëkk bi ak ni ma ci daan jàppee demul ni ma ko bëggee woon pousse naa pouse def naa lu nekk parce que association bi fi gën a rëy muy association de jeunesse ci ñi ko créé laa bokkoon muy ASC Kajoor donc du ma gan ci dëkk bi du ma gan ci mouvement de jeunesse yi du ma gan Kajoor parce que commune boo laal rek maa fa ëppi mbokk fa laa donc ma ni léegi li xew nag mooy ñëw nag dugg ci langue gi pour mën a indi directement li ma xalaat ni mooy indi coppite topp nag mu méngoo ak période boo xam ni ci la ñuy wax li ñuy wax euh, transformation structurelle euh, de l'économie ñun ñoo ko théoriser à la base di joxe ko donc partager ko avec les autres institutions et les pays alors mais comme comprendre naa concept boobu yàlla may na moo bokk ci li ñuy wax senior management committee mooy comité directeur bi nga xam ni mooy gérer orientation banque bi xamoon naa compréhension bu baax nu ko mën a tërale ba tënk ko mu doxal réew yi ma ni waaw mais kii occasion la yàlla def ma tase président la république ñu waxtaan mu wax ma loo xam ne dama sentir ni kii li muy wax ci xolam la ko jële mu ànd ak une grande sincérité tegu ci yoon nag muy Sénégal émergent yoonu yokkute et cetera ma ni voilà c'est le bon moment pour le monde rural et comme man monde rural daf ma mos a ñor gouvernement am vision bu méngoog doxal monde rural mu am concept bu bees boo xam ñun ñëw ko théoriser ma comprendre ko ma ni c'est le bon moment ni c'est le bon moment ma waxtaan ak président bi maa ngi ànd ak waa BAD yi yëpp parce que boobu man maay président association sénégalais BAD bi ma ko dégloo ñu génn ma ni gars yi déglu leen quoi na ngeen téye seen toog seen bu dëgër ñu ni ma lan la mën leen mais damay jóge banque dans un mois fekkoon na boobu ma ci waxtaan ak président bële mu jëm ma téye ma ne ko daal li ma dugg bu ma lay fàttali loo xam ne dafa xew suñu gox bee ah. sëñ bu mag am na buur dafa bëggoon na dem yi te bu xeexee day dee mm. dem sëriñ bi ni ko tee ngaa bañ a dem ma ni ko peut-être anecdote boobu doo ko xam mais nag euh, mënatuma dellu ginnaaw fi mu ne daal le devoir m'appelle le pays m'appelle le village m'appelle et je vais retourner dans mon village. waaw ci noonu nga ñëwee mais pour nga jot ci maire bi il fallait que nga jaar ci langue politique ndax ndax loolu yomboon. non xamoon naa dëkk bi damaa xam Kajoor ba mu jeex. parce que aussi euh, non seulement am naa euh, certificat en sociologie en civilisation africaine donc xam naa bu baax Afrique. xam bu baax Kajoor parce que Foussata mais xam bu baax Ngaye parce que nee naa la ñun ñoo créé association de jeunesse bi fi gën a rëy mais bi ma xoolee xam ni bi may ñëw itam bi may takku dama ñëwoon pour pour pour pour bëre ak ñi fi nekk mais bi ma ñëwee ma xool xam ni am na ko fi nekkoon koo xam ni am na ay nit ñeneen ñi amuñu programme parce que Sénégal ñu fiy présenté ay programme aussi bëriwuñu ma tënk programme ñëw won ko société civile bi parce que man mosuma woon def politique. won ko ñi nga xam ne ñoom laa daan àndal temps ba may doxal ASC Kajoor ñoo fii mag ñi léegi ñu ne ma lii dëggu na ma won ko waa dëkk bi ñun dëggu na ma dox ko ñëpp supporté ko ma def ko ci internet bi ñëpp supporté ko les réactions positives te encourageant bi ma ñëwee ma woo leader yëpp ni leen ñëw leen ñu ànd nekk benn nga xam ni léegi du am compétition politique benn parti rek mooy am mooy dëkk bi bu ñu demee ba gagné ba am conseil municipal ku nekk ñëw décliner ce programme conseil municipal bi voté gars yi ni non yow da ngay soog a si da ngaa bëgg foo làqatu ah ñenn ñi ma dem wax ko maire bi fi nekkoon maire maire As Diagne mu ni ma léegi da ngay natt sa bopp boo nattee sa bopp ah ñu xool parce que booba tam ne ñu kii dafa ñëw rek day rêveur la quoi ah ma ne ko d'accord ma dem natt sama bopp ñëw benn bis mu ni ma daal bu doon bu doon ci làmb la nekk daal yaay Balla Gaye fi mu nekk nii nan ànd ñu daal di ànd boobaa tam bi ma ñëwee dama ànd ak ak nekk ci ginnaawam nit ñi naan ma dalay naax day def lii man leen daal li ma xam mooy kii bëgg na dëkk bi ndax alalam jëpp ñu ngi ci biir dëkk bi donc bu dëkk bi doon tàkk tey mooy ëpp lu muy ñàkk kon man awma xel ñaax damay liggéey moom ku ko nekk rek baax na mais sama programme daal nan ko doxal donc ñu d'accord ci loolu ma ñëw donc préparé na xam li may def itam xam fi ma jëm xam yor samay moyens aussi dox nit ñi nit ñi rek la nag eh nit ñi tàkkatu jàppale ma ma ànd ak as ñu ma nekk maire donc euh, euh, affaire maire yi affaire politique politique mooy nit ñi rek dox ak nit ñi am nit ñi du question yàgg naa cee fii laa bokk ak am naa alal ak maa fi gën juddoo maa fi gën a no problème la mooy est nit ñi parce que nit ñi dañoo yeewu léegi bokkatul bu njëkk da ngay ñëw ñu ruus la bàyyi ñu soxla xaalis léegi nit ñi doo bëgg seeni dëkk nan la ñu mën a def ba yow nga doxal leen seen dëkk te defe naa ni nit ñi sama programme la ñu jàpp moo taxit lépp lu man di def ak lu man di wax li ma ñor mooy doxal sama programme ba nit ñi xam ne la ma leen waxoon def naa ko loolu nag président de la république Macky Sall conviction ba ma amoon ba tax mu motiver ma ba ma engagé wu maa ngi koy gis ni mu ngi koy doxal parce que man nekkuma Ndakaaru maa ngi fii ci biir Kajoor di dugg ci réew mi nag di dawal sama oto di dem fu nekk di jël samay moyens nag di koy sama dëkk parce que loolu yoreel naa ko sama dëkk léeg-léeg dañ ma naan mais affaire bi metti na yërëm nañ la mais mais kenn waxuma demal nekk maire kenn waxuma demal ñibbi su ma neexoon toog ba toogaat sama cinq ans ñu prolongé ma toogaat fa am yeneen grade et cetera am naa kër Abidjan donc am naa ay teranga yoo xam ne ci banque yi laa amee mais dama teel a génn may ma wërsëg musuma liggéey Sénégal bi ma amee vingt quatre ans laa génn am contrat ak assistant technique international génn kon yore naa njukkal dëkk bi donc li may joxe coono bi may dajak euh, difficulté yooyu day loo xam ni maa ko tànnal sama bopp et yàlla mi ngi may may nag avec l' appui du président de la république et de l' état ñoo ngi avancé dëkk baa ngi dox réew maa ngi dox bëgg naa et regretté wu ma lu tax ma ñibbi si. léegi sa sa guddi gu njëkk boobu la takkalee sa sa xel ci yan la dem ci guddi euh, sama xel mooy rek sama programme boobu am naa li ñuy wax plan d'action am naa chronogramme parce que manager international là aussi yàgg naa manager donc je connais les hommes xam naa seen état d'esprit xam naa changement lu mu doon xa donc. aw ma mbetteel et puis am naa ay ay ay liaaseel ci comportement des organisations et xam naa waa Kajoor xam nan ma léegi nag am na ñoo fi bawoon ñoo xam ne xamuñu donc ñooñu il fallait ma ni takk jàngaat nag la ma rëccoon ba ma fi jógee ak xamaat nit ñi pour demaat ak ñoom donc guddi googa bi ma ñëwee ma xool confiance bi c'était c'était émouvant et j'ai compris que nit ñi wotee lu ñu ay nit programme la ñuy voté et que je me suis dit sama plan d'action guddi googu nelawuma sama table laa toog di defar chronogramme dans comme de temps je vais dérouler cette feuille de loolu moom laa def et ba léegi defaguma deux ans mais def naa pratiquement 65 pour cent de mon programme. Euh, justement est ay quelques exemples ci chrono bon pro moo doon yi nekk en en hibernation yëpp ma deqal leen doxal ko les les vieux chantiers ma dox ko. yi nga xam ni ay infrastructures la qui sont décadentes ma restaurer ko ba pare nag indi yu bees donc sur ça la mairie j'ai débloqué les ressources par ma négociation ñoo ngi tabax mairie bi léegi mu pare j'ai trouvé que les ressources de l'hôpital étaient bloquées j'ai négocié on a débloqué l'hôpital est terminé les sapeurs-pompiers j'ai toujours pensé que c'était une nécessité j'ai entrepris des démarches nous avons la caserne le président de longtemps souhaité venir organiser la journée nationale d'artisanat à Mékhé nous avons entrepris les démarches il est venu et nous avons eu 400 mètres de route même bu bariwul le la réhabilitation du stade municipal c'était des négociations latentes je suis allé les bailleurs ont eu confiance et nous sommes en train de réhabiliter le stade j'ai compris que yàpp bi dox ci mbedd mi c'est de l'abattage clandestin je suis allé et j'ai négocié et je vais construire un abattoir j'ai l'argent on le marché j'ai j'avais dit que dëkk bi ak lu ñu ci investir électricité du dox parce que fil yi c'est depuis 1963 donc day am ay pertes il fallait réhabiliter le réseau électrique c'est le rôle de la Sénélec qui n'a pas pu le faire j'ai utilisé l'argent de la mairie et j'ai réhabilité un kilomètre cinq cents de fil nu et je les ai mis en fil monobloc pour éviter les accidents d'électrocution et aussi permettre à la ville d'avoir une distribution stable j'ai installé un terrain de basket pour diversifier le sport. Parce que le sport, c'était le football seulement qu'ils connaissaient. Et j'ai dit, il faut diversifier, faites ce qui marche dans le monde. Donc on a le terrain de basketball. Et j'ai compris que le patrimoine du Cayor, c'est la culture. Le Cayor, c'est la culture. Et j'ai dit, il faut créer une grande troupe du Cayor. Et j'ai créé la troupe Penchum Cayor. Et j'ai doté la troupe d'un orchestre moderne et d'une batterie moderne et d'une troupe théâtrale de, de, de haut rang, et aujourd'hui, le Cayor de la culture est réhabilité, etc. Les infrastructures de la mairie, l'hôtel de ville, j'ai réhabilité. Donc, nous sommes au travail, et, et Internet, il n'y en avait pas, il n'y 3G. Dès ma prise de fonction, je me suis battu pour que la ville dispose d'un 3G. Aujourd'hui, nous en avons, nous avons Internet, et les écoles ont eu également, avec l'aide de la Sonatelle, euh, accès à Internet gratuit. L'hôpital, nous avons un laboratoire digne de ce nom avec des équipements de pointe. Nous avons ouvert la maison de l'outil qui était en hibernation avec des équipements ultra modernes. Nous avons rouvert la case de santé de Ngaïdité pour appuyer les autres villages. Nous sommes en train de négocier le centre aéré que Saint-Dié-des-Vosges a promis de construire avec une piscine municipale. Et machallah, si la route également que j'avais discutée avec le président Wade d'abord, Et j'ai dit, mais le Cayor a besoin d'une route qui part de Baba Garage à la mer. Aujourd'hui, l'appel d'offres est lancé, le marché attribué. J'en appelle au chef de l'État pour que ce, cette route soit exécutée. Et donc, on a commencé, des ma prise de fonction, quatre mois après, à faire la piste Meke-Djogo. Aujourd'hui, on roule pour aller à Djogo. Donc, vous voyez que c'est un panoplie de, réalisation mais nous ne sommes... Et j'avais dit, nous voulons une ville, une écocité, où nous pourrons nous passer demain pour éclairer la ville de la Sénélec. Nous avons installé 60 lampadaires solaires dans la commune et nous avons même donné au village environnant. Donc Meké dispose désormais d'un atelier de, de, montage de kits solaires avec l'appui du PNUD que nous avons négocié pour un montant de 100, etc., etc. Nous avons reboisé plus de 500 arbres et et cetera et am na centre boo xam ne tam tey ciy liggéey la mën a indi ci liggéey ban njëriñ la mais la la la la base économique de Mékhé c'est l'artisanat et aujourd'hui nous sommes en train de négocier avec les Italiens pour construire une tannerie biovégétale pour l'équivalent de 5 millions de dollars nous avons l'appui du FONSIS et du ministère et j'ai effectué une mission avec le ministère à Firenze en Florence et les Italiens sont intéressés et le FONSIS est intéressé l'artisanat est l'axe mooy axe bi nga xam ni mooy développer Ngaye et donc lii ministre bi def président de la république def ko ministre bi ñëw di ko inauguré loolu mooy teg Ngaye ci raay bi nga xam ni mooy koomam et bu artisanat bi doxee rek dëkk bi dox Ngaye li mu waree njëkk a xëccoo am mooy unité boo xam ni day produire ay dàll sans perdre nag l'aspect artisanal aujourd'hui ci àddina bi liy dox mooy handmade mooy lu ñu defaree loxo donc gars yi mën noo tëgg mine baa ngi fi gis nga réhabilité nañu gaar bi dàll yaa ngi fi mais li muy def nii muy un centre d'exposition de commercialisation des arts kooku amul ñett la defe naa ci biir Sénégal benn bi nekk ngaay kon daal ngaay ñoo ngi koy delloo njukkalam et ñun ñoo ci des nag moo taxit ñu takku li leen wax lépp nag pour ñun ay fondation la yoo xam ni moo ñu yóbbu ci économie moderne yóbbu ñu Sénégal émergent mais waa ngaay mënuñoo fay président Macky Sall du question politique sax vision yoonu yokkute émergence transformation structurelle xëy na dëkk réew mi dafa tolloo ak fu jamono doxee ba toll ni léegi nit ñi doo xam ni pour transformer économie bi il faut ñu def ko de façon structurelle et ñu tombe ci nag ngay nekk loo xam ni artisanat bi euh, en termes de contribution au PIB c'est c'est énorme et créer mën na créer ay emploi mën na occuper ay jeunes parce que il y plus de deux cent cinquante ateliers qui occupe plus de 3000 jeunes dans la ville et environ donc su suñu ci defee dina man a booster croissance de joxe un développement inclusif permettre aux Sénégalais d'accéder à l'emploi et au marché international donc de donner une valeur ajoutée à la croissance. mais ci wàllu politique Benno Bokk Yaakaar amoon na ay man mosuma gis ay jafe-jafe man liggéey bi un mooy sama programme li ñu ma dénk président bi li muy doxal bon maintenant. nit ñi li ñu mënta nangu il faut ñu xam ko Sénégal ak Afrique danoo tardé ay affaire bi ñu ñëwee man dama bëggoon nekk tête de parce que bi ma ñëwee booba fekk na ma dugg ci parti bi depuis ba ma gisee président parce que nit ñi dañoo defee ni ku nekkul ci réew mi rek bokkoo ci parti bi kooku aussi les gens ils sont un peu bornés sur ça bi ma ñëwee ñu ni kuy nekk tête de liste ñii ñii maa fi newoon mais ñoom est-ce que xam nañ man kañ laa dugg ci parti bi laa gis. Euh, président Macky Sall ba mu convaincre ma idéologiquement ak kan moo ëpp doole du question maa fi newoon kan moo ëpp doole ci dëkk bi ñu nekk fa di discuter coow li bari ñun ñoo fi newoon ne dem leen ma dem def sama liste takku liggéey ngaay doo defee takku liggéey ngaay ñoom benn Bokk Yaakaar ñëpp réunis ma battre leen ñooñu est-ce qu'ils sont représentatifs non bëgguma raviver ay blessures parce que ces gens c'est mes frères ñoo bëkkandoo dëkk bi juboo nañu on a on a on a fait taire les querelles, les querelles, et aujourd'hui on oublie tout ça mais il faudrait que parti bi militants yi xam ni il faut ñu yaatal la la politique moi je fais de la réelle politique mooy politique bi nga xam ni moo lay permettre nga jàll moo lay permettre nga am un électorat nga gagné j'ai fait la réelle politique j'ai gagné donc ça c'est c'est c'est c'est c'est un c'est modèle de politique mais bu mu toogee fii c'est comme Benno Bokk Yaakaar c'est comme APR il faut nit ñi ubbeeku maa fi newoon nag maa jige président beeg maa ngi xaritam yooyu c'est du bluff le travail c'est sur le terrain qui fait quoi et qui peut mais nit ñi nag kenn mënatu leen a convaincre ak milliards kenn mënatu leen a convaincre ak ay promesses c'est la réalisation et Sénégal émergent bu ñu jotee dina mel ni au rendez-vous li Senghor di wax di donner et du recevoir ku nekk di ngay nit ñu wax la lan nga def nga teg ko ci taabal mais bu boobaa nekk fa naan keroog moo président bi waxee léegi xaritam laak ba mu ma yónnee maa njëkk ci parti bi kooku avancer lu kenn et il nous faut de l'ouverture l'ouverture envers les autres moi je suis pour toute forme d'ouverture toute forme de coopération mais nag qu'on privilégie les compétences et que les gens parviennent à à accéder à des emplois ils vont être profitables aux populations kàddu gi daal mooy mooy sant di wax ni nag la communication elle est importante mooy il faut nit ñi mën a comprendre les enjeux de la communication mais aussi mën a xam surtout la philosophie du développement qu'incarnent les leaders et qu'incarne le président de la République donc aujourd'hui li nekk ngaay ñun même buñ si jógee dañuy continuer di saafandoo ak artisans yi pour ñu gën a xam ñun fan lañ leen bëgg a jëme lan la ñuy xaar ci ñoom ak président de la République li muy def ak ñun suñu yéene ak seen i bëgg-bëgg nan la mën a méngaloo ba ñu développement fii am ko ci département bi am ko ci région mais nag indi suñu part bis bu nee Sénégal émergent yi nii ñu ni waa Kajoor du ñu indi lu ca ngaay indi ñu ni mi ngi nii ñu ni ah waa leen góor loolu la ñuy. merci monsieur merci beaucoup.